voilà Pape Cheikh comme ni ñu ko waxee sànq en fait dafa nekk loi boo xam te dañ ko voté woon depuis 2014. Mm. maintenant de 2014 à maintenant gisaguñ si dara mais juillet dernier def nañ li nga xamante ni mooy décret d'application bi donc euh, ñuy wax fan la ñu war a tuxee fan la ñu war a tuxee déjà ki nga xamante ni moom mooy docteur bi nga xamante ni mooy docteur Ba nga xamante ni mooy lépp lu jëm si mise en œuvre bi nañ ko nuyu déjà monsieur Ba ñu ngi lay euh, nuyu Bonjour. Bonjour. Je vous entends voilà maa ngi leen di nuyu di la dalal maa di nuyu déggoo ko bu baax. alhamdulilah dañu xaw a raglu tey ah ak maquillage yi. <laughs> non non j'ai compris c'est Alioune qui est par la quoi. <laughs> voilà merci d'être là docteur merci d'être là ñu ngi lay gërëm bu baax. déjà lu ñu bëggoon laaj pour euh, euh, par rapport ak loi bi lan mooy disposition phare yi nga xamante ni moom lañ ci jël par rapport ak application loi bi. mais disposition yi d' abord mooy euh, première disposition phare mooy mooy composition bi est à dire que en ce qui concerne la cigarette déjà les la composition va changer c' à dire qu'on va plus mettre des euh, on ne va plus mettre des des des des produits qui peuvent masquer les odeurs qui peuvent masquer la le caractère euh, nocif du tabac. La deuxième disposition qui est importante à signaler c'est le conditionnement c'est à dire que Euh, au Sénégal, les paquets qui sont vendus, c'est des paquets où on met habits dangereux pour votre santé. Cela, ça va disparaître. Ce qu'on va mettre maintenant, c'est des messages d'avertissement sanitaire, c'est-à-dire des photos. Ces photos-là, Euh, fan lañ koy def si. sur les faces principales on va les mettre sur les faces principales recto verso les grandes faces. Okay. il y aura 70% des faces où il y aura des photos. Mm. ces photos là c'est des des images donc des maladies que la le le, ta, le tabac entraîne chez l'individu. wala alors pour permettre ñu bëri comprendre. mën nañ ko expliquer. Euh, ci wolof paquet yi ñëw nan lay mel. paquet yi c'est xam nga boo xoolee paquet yu ñuy jaay Sénégal léegi paquet yi li ñu ci bind mooy abus dangereux pour la santé mmh. mais xam nga ñu bari du ñu lire mmh. donc duñ ko xool sax mmh. léegi euh, lu ñuy def mooy dañuy def paquet yi ay photo lañ ci ay nat ay ay nat ay photo photo yi nga xam ne day jël face yu mag yi photo yi ay photo nga xam ne euh, euh, feebar cigarette daf koy jur moom waaw moom moom lañ cee def très bien waaw d'accord mais ma li ma bëggoon laaj euh, docteur mooy est-ce que multinationales yi xam nañ nii dañu am doole fépp ci àdduna bi par rapport ak mesures yi ngeen jël ñoom est-ce que xawuñ ci am lu leen xaw a métti par rapport ak li ñu war a jaay ak seen ak seen cible par exemple ils mais xam nga loolu moom loolu c'est lu am la parce que yéen a ngi dégg fu nekk ay procès ay kii ñu oh. senegal cest à dégg que ñun tamit xam nga réew yi tugal yom ñëpp dañu am ay loi pour aar seen seen seen population dafa jot Sénégal Sénégal dafa nguur Sénégal dafa toll bi nga xam ne période bi nga xam ne ñu ne il faut ñu aar suñu suñu su suñu population. suñu askan bi mm-hmm. donc comme que Sénégal jël na loi boobu du contre l'industrie mais c'est pour protéger nos populations. Mm-hmm. donc c'est important kon nekk da ngay il faut il faut population parce que aujourd'hui seen at bu nekk cigarette dina rey juróom benn fukki millions doomu aadama cigarette dina leen alak dina leen rey at bu nekk. donc loolu mënoo ko seetaan donc képp ki nga xam ne da nga nekk gouvernement responsable am peu responsable mënoo seetaan nga ne ko c'est parce que kan ku muy rey mooy xale yi nga xam ne c'est notre suñu xam-xam c'est-à-dire c'est notre population mm-hmm. c'est notre avenir mm-hmm. ñoom ñooy dee parce que ñoom ñooy nekk actif euh, économiquement actif mm-hmm. parce que ñoom ñoom ñooy tux parce que cigarette dafa yomb ba Sénégal ñëppay tux fu nekk loolu mooy problème bi donc il faut que ñun ñu ñu xam ne loi bi c'est pour protéger nos populations c'est important mais docteur bu ñu ñëwaatee ci cadre réglementaire bi est que mën nañ xam léegi par rapport ak loi bu bees bi yan lieu la ñu war a tux la ñu warul tux et éventuellement soo si yi ñu interdit lan moo la ci. ci fekk alors ça c'est très important parce que euh, la loi interdit de dans tous les lieux publics. ok bépp lieu public nga xam ne c'est fermé nit yi dañ cee daje c'est interdit. Mhm. loolu amul délai. cela veut dire quoi cela boo dire que que ce soit dans le restaurant que ce soit dans l'hôtel que ce soit dans l'auberge que ce soit dans les cafétérias le bar le dancing il est interdit de fumer. fépp ay nit di nga xam ne nit dañ day mhm. nga xam ne moo ci bokkul. lan mooy domaine privé ak xam ne mënuñu def naa ko léegi am nañu ma jox naa exemple hôtel hôtel lieu public la. Mhm. la auberge lieu public la. Mhm. Euh, euh, salle de de restauration lieu nga xam ne où les gens la salle de cinéma c' est lieu public. lépp li nga xam ne c'est pas ton domaine privé ti amu amu amu amu amoo droit foofu et y a c'est-à-dire bu fekkee da nga am euh, hôtel nga amee restaurant wala nga am li nga xam ne établissement public qui reçoit personne ay auberge da nga war ab taf de façon visible et claire que li interdit de fumer ok c'est noonu laa doon de façon claire. est-ce que dafa am ay sanctions yu ngi ci teg. ah oui oui oui respecté wuñ ko. mais daani c'est-à-dire que déjà euh, lundi bi ci bopp nit ki ci boppam bu fekkee dafa violé loi bi. Mhm. la sanction là c'est-à-dire que mën na fay tout de suite benn benn amende forfaitaire de 5000 francs sinon c'est 50 000 à 100 000 francs lay fay daani foofu la. ki nga xam ne moom moom lieu bi c'est-à-dire que nga nekk ci restaurant gis ay nit ñuy tux soxla ngay dem moom di xula ak moom parce que c'est un client tu client mhm. da ngay woo bi restaurant bi parce que il a reçu xam na mhm. ñun depuis semaine passée tase nañ ay hôtel ay restaurant wax nañ restaurateur wax nañ leen nga wax ko moom kii mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi tux fii mu ngi en fin de loi bi kooku wax dafa war jël de pour moo verbaliser ki ko ki violu bi mhm. donc loolu dafa nekk li nga xam ne dañu lu ñu bëgg mooy aar di ngeen il faut ngeen xam ne euh, xeetu cigarette dafay dafay alak doomu aadama nga xam ne mosul tux ñun du ñuy gis dañuy gis ci suñu service ay suñu hôpitaux ay nit nga xam mosuñu tux mosuñu mhm. jëfandikoo cigarette ñu am cancer mhm. te cancer ba cancer cigarette moo ko indi soo leen laaj ay jigéen lu bari ay jigéen soo leen laajee ñun suma jëkk suma jëkkër moo doon tux wala suma borom lu la moo am mm-hmm. donc cigarette bi interdiction de fumer c'est lieu public mooy protéger ñeneen ñi c'est-à-dire que les au lieu au lieu de travail mm-hmm. même oto bi nga xam ne daf leen di indi ci seen lieu de travail ça fait partie de l'interdiction c'est c'est visé par la loi. et c'est comme ça que ça se passe dans toutes grandes nations. ah oui oui mais non mais c'est clair maintenant combat bi itam euh, bu weesoo nit ki parce que dañuy faral di naan le droit de fumer ne se donne pas le absolument les doon baaxul. bi ni ñoom ñoo jiite euh, lieu yi ñoom itam ñoo war a teel a jël fii dañ fiy tox fii duñu fi tox am ay zone fumeur ak ay zone non fumeur bërëb yi nga xamante ni kenn war a fa tox à la àll a fa faudrait que euh, mu nekk euh, xeexu ñëpp ñi nekk ci lieu public yi ak tuxkat yeeg ñi dul tux je suis entièrement d'accord c'est-à-dire que xam nga c'est un changement de comportement et aussi un engagement citoyen mm-hmm. parce que bu ñu tëree les lois c'est une loi républicaine c'est pour les citoyens. bien sûr euh, on aurait pu dire qu'aujourd'hui nul la loi ñu appliquer ko mais lan moo tax ñuy ñëw di waxtaan ak euh, taskat xibaar yi di waxtaan ak restaurateur ak ñeneen c'est pour nit ñi ñu yee leen. Euh, ministère de la santé dafa bëgg éduquer nit ñi loolu mooy suñu loolu mooy programme bi. Mhm. et li ma bëgg a leeral aussi mooy amul zone no fumeur amul zone fumeur amul. ça n'existe pas. c'est interdiction de fumer on ne fume dans les lieux on peut pas dire que fii da ngay loolu amul mu ngi mel ne léegi nga am piscine nga ne ñi am nañu droit def lu leen nag fii fii amoo droit non c'est pas possible mm-hmm. c'est pas possible parce que air bi ngay noyyi ñëpp ñu koy noyyi donc c'est interdit mm-hmm. y pas de zone inter y pas de zone permise autorisée non mm-hmm. La, la seule chose que l'on a prévue de façon euh, euh, claire c'est qu'on appelle l'aménagement de fumoir. Mhm. mais loolu daf ko resté nañ aéroport ak certains hôtels ak certains restaurants. voilà fumoir boobu parce que boo nee zone fumeur. c' est comme parce que keroog dafa am en 2016 nga xam ne dafa woote. mu ne man commencé naa sax loi bi cest restaurant teg fi ñaari table pour ñuy tox ngeen non c' pas ça. Mhm. fumoir dafa am spécificité nga xam ne def nga nga topp charte yi lu mu wax te nga nga ñu contrôler c'est moo ne méngoo ak norme y a pas de problème ça la loi la loi la l'interdit pas mais soo ko interdit c'est de dire que fii am nga droit fii fii am nga droit loolu amul déjà la loi kañ la entrée en vigueur la c'est-à-dire que il dans la dans la loi il y a ce des dispositifs à dispositifs à application immédiate su loi bi ñu ko voté mars 2014 su ngeen xoolee dëkk bi c'est-à-dire Dakar boo wàccee ne aéroport Dakar li ngay jëkk gis ay panneaux publicitaires tabac loolu dakk na bu on ne le voit plus ici c'est terminé c'est la deuxième chose mars 2014 l'a on l'a en mars bu ñu voté loi quand on loi la loi prévoit ce qu'on appelle le décret d'application yéen pour seen question bi léegi c'est-à-dire bu nee espace il est interdit de fumer dans les lieux publics lan mooy lieu public il faut que l'agent de force de l'ordre c'est quoi le lieu public donc il fallait que ñu bind ay textes c'est-à-dire l'article 35 prévoit l'application de la rédaction des décrets d'application il fallait ñu ñu ñu ñu ñu ñu toog ñu bind lan mooy par exemple lieu public bi ñu defa nekk escalier ci la ascenseur ci bi ci la euh, cage d'escalier bi ci la c'est-à-dire lépp li nga xam ne bàyyi da nga ko bàyyi mhm. nit ki mën na jaar mu ah là ça fait pas de la loi donc il fallait que mhm. jusqu'à la cour suprême du Sénégal mhm. ah oui oui oui oui ça c'est les fait des commissions techniques on est on avec le gouvernement avec l'ensemble des ministères ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy defoon dañuy tabax dañuy euh, fabriquer pont sax ñu ngi woon teew na am ne bi dafa dëppoo ak yoon dafa euh, nekk ci nga xam ne ci constitution Sénégal lu mu wax. Mm-hmm. application loi bi. Mm-hmm. donc ça prend du temps c'est pas du jour au lendemain nga xam ne am na. Pape Cheikh man c'est benn crainte la am Pape Cheikh xam la docteur. on s'en souvient tous ndeysaan bi euh, bateau le amee les mesures que l'État a a pris. aujourd'hui euh, dañu dem ba ci biir première semaine bi ni nit waaw commencé bañ di kii buruxloo ci kaar yeeg kenn jaar kenn jaaratul ci fenêtre yi euh, pour pour dugg ci kaar rek bon les gens étaient devenus euh, benn moment voilà strict par rapport ak ba mesure ñu dawal tuuti affaire yi ñëwaat amatul rang amatul respecté ki est-ce que tey aujourd'hui ce ne sera pas le même cas parce que mm-hmm. aussi beneen question les restaurateurs hôteliers et autres aujourd'hui ñoom euh, nit aussi am na droit tux bu fekkee da ko tàmm ñëw ci benn restaurant tey peut-être mën nañu ko def benn zone boo xam ne bu bëggee tax mën na dugg foofu dem dem tax fa donc c'est des frais supplémentaires par exemple pour euh, ces responsables là ou, ces gens là lan ngeen xalaat def pour quand même. Euh, li ma waaw mm-hmm. que c'est pour ça que un rôle important. su ma fa ñëwee tey justement ci la. parce que vous êtes des éducateurs. parce que le citoyen lambda le citoyen doit connaître que la le, le, le sens civique. Mhm. le sens de cet l'engagement parce que loolu moo tax état muy dox. Mhm. quelle quelle que soit la loi la loi ne sera que ce que nous les Sénégalais on va en fera. Mhm. l'état l'état a fait son devoir. c'est de dire que loi bi lii ak lii ak lii dañuy aar population yi xale yi d'ailleurs xale yi. ci loi bi amoo droit jaay cigarette xale amoo droit jaay loo ko cigarette amoo droit jaay cigarette ci wetu école donc loi bi lu mu def mooy aéré pop mais il faut que ku nekk en ce qui le concerne mu xool lan la mun def ci changement comportement mooy yée mu ni il faut il faut ñu tàggat suñu suñu suñu jikko yi pour jéem a respecte loi bi on peut pas oublier les gens ce la sanction est là Mais avant de sanctionner, il faut éduquer. C'est important que les gens aussi sachent que la loi, c'est pour le Sénégal. Mm -hmm. Le sens citoyen, le, le sens civique de l'individu, c'est de respecter la loi. C'est aussi être fier de ce qu'on est. Mhm. Ben, ñaareel bi mooy mhm. euh, quand on, on on est en train de le ministère de la Santé a mis en place ce qu'on appelle un programme national de lutte contre le tabac. ci programme boobu dafa am ay volets yi nga xam ne mooy éducation mu ngi si euh, euh, information ngi si ak leneen ak leneen pourquoi parce que balaa ñuy sanctionner nit ñi dañuy bëgg au moins nit ñi xam que nul ne c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi mais il faut aussi que les gens ñu jéem leen jël leen bu waxtaan ak ñoom pour ñu xam c'est important c'est important que les gens sachent que la loi là ton droit s'arrête là où ça euh, commence celui de mm. l'autre mm. parce que la ñaare bi la loi c'est pour les gens Ce qui est normal, c'est de ne pas fumer. le fait de fumer là c'est ça qui est anormal et ça même il faut aussi ngeen xool fii même fii ma fi ma toogoon les je vois les gens qui fument mm-hmm. la cigarette entre ça aussi il faut qu'on voit tout ça mais communication boobu ngeen wax comme yéen yéen a euh, yor lépp lu jëm ci mise en œuvre ak application loi bi est-ce que yéen yéen a ngi ci communiquer ba nit yi li nga fi expliquer yëpp ñu mun a xam déjà lan mooy public lan mooy privé mm-hmm. euh, lan moo la ci mun fekk parce que aussi nit ñi yëg nañ ni voté nañ ko mais la preuve de 2014 à 2016 bi ñu ko commencé def euh, li nga xamante ni mooy application ba tey beaucoup de d'éléments yoo xamante ñun maîtriser guñu. la, la loi je rappelle que la loi a été signée les le président de la République le 26 juillet 2016 oui. il faut ça la loi a été publiée au journal le 13 août. Mhm. on est juste de euh, d'octobre là. c'est le très août que la loi a été. Euh, mm. la la la mm. l'entrée en vigueur de pour que les gens comprennent il faut que le texte aussi qu'il y ait des documents. Mm-hmm. le vote de la loi comme je l'ai dit am na yenn partie ci loi bi application immédiate la. mais yeneen yi il faut ñu toog xoolaat ah. loolu moo moo jël temps mais aujourd'hui tout l'arsenal juridique mm-hmm. législatif est en place mm-hmm. notre rôle c'est c'est informer les gens On aurait pu rester chez nous, on dire que nul n'est censé ñuy là, aller prendre les forces de l'ordre, dire voilà, je viens ici à TFM, ñu ngi voyer le loi bi nañu leen sanctionner. Mhm. Parce que les sanctions sont là. Mais non, n'a pas pris cette approche-là. Notre approche d'abord, c'est une approche participative éducative. Mhm. Dañuy pour que pour que les gens comprennent. Ce qui est tout à fait normal parce que dafa nekk li nga xam ne on ne peut pas jouer avec la santé des gens. Aujourd'hui, enquête bi lan def enquête nationale de tabagisme. Mhm. sur le tabagisme au Sénégal on a trouvé que un demi million de Sénégalais dañuy tux genn wàllu million sénégalais dañuy tux dañuy jëfandikoo pôle te amul xale amul góor amul jigéen amul gox amul goxaan ñoom ñëppay tux ñoom ñëpp fu nekk la ñuy tux mais c'est grave ça ñooy tux ñi nga xam ne ñi dañuy daan seen doole ñàkk seen comme ça mu ci lekk mu ci loolu c'est une réalité il faut ngeen waxtaan ci loolu ña ña ña ñaareel bi ci ci mbirumu application euh, application loi bi euh, quand si tout le monde joue le jeu c'est-à-dire que mu doon ne restaurateurs yi les hôteliers les auberges tout le monde joue mais il y aura pas de problème parce que nous on nous ah, moi je suis médecin ce que je ñi nga xam ne dañuy tux sax bëgguñu am facilité tux c'est-à-dire dañu bëgg nekk ay endroit yi nga xam ne sax suñu lay teree tux sax temps yooyu ñu bañ tux parce que xam nañ ne loolu dafa leen di lool parce que lu tax loolu parce que dépendance bi c'est-à-dire cigarette drogue la la cigarette c'est une drogue monsieur Dame c'est drogue comme c'est une drogue nit ñi dañuy am dépendance ci loolu ñun aussi ñu ngi lancé appel bu fekkee am na ñi nga xam ne dañu bugg arrêté tout parce que drogue la mais nañu ñëw ci structure de santé yi nañu hôpitaux yi yaa ngi nii professionnels de santé ñu jàppale leen parce que am na ki nga xam ne daf ci dugg mais daf koy jafe pour mu génn si pour mu bàyyi ko day jafe si moom mm. donc c'est pas une loi pour réprimer les gens mm. non c'est pour que loi bi tey c'est pour protéger les générations futures bu ngeen xoolee loi bi c'est pour protéger surtout les générations futures et protéger les citoyens. moo tax communication bi am ci solo pour sensibiliser. Ah. parce que en fait dama dama comprendre léegi da nga ni euh, am na ay cellules d'accompagnement pour ñi nga xam ne dañu bëgg jàng dañu bëgg a bàyyi tox waaw c'est bien ça. waaw est-ce que communiquer communiquer ngeen ci loolu. mais ñu ngi def lu ñu mun. cest à maa ngi fi di ko wax déjà cest boo demee hôpital Fann ku bu bugg a bàyyi tux accompagnement soo demee Fann ñu jàppale la. Mm. boo demee hôpital général Grand Yoff man foofu laa nekk dina la jàppale. Mm. boo demee ci clinique ku mel clinique Mamet ñoom Abdou Aziz Kassé dañ la jàppale soo demee hôpital principal aussi c'est la même chose les grands hôpitaux même bu fekkee dëkkaloo Dakar nga nekk ci région yi docteur yaa ngi foofu professionnel santé ñu ngi foofu nit yi nañu ñu ci mën deel di dem problème lii mooy sama problème lii yi dinañ soit ñu jàppale leen foofu wala ñu leen mm-hmm. parce que programme bi dafa taxawal li ñuy wax comité national mm-hmm. la santé moo ko présidé mm-hmm. ministère yëpp ñu ngi si toute personne ressource mu gis lan moo waral ko mooy xeex pon te loolu am na ci quatorze régions du Sénégal dans chaque région am na benn comité régional de lutte contre le tabac monsieur le gouverneur moo koy présider mm-hmm. médecin régional bi mooy ordinateur bi mm-hmm. les états les les structures décentralisées et déconcentrées de l'État ils sont membres ak ñeneen ak ñeneen ay société civile comme ñeneen ak ñeneen ñoom ñu ils sont membres pourquoi parce que dañu bugg xeex pour que xeex bi du yem fii ci Dakar c'est euh, Sénégal yëpp la la la soxla voilà c'est important important en tout cas et puis euh, des pays comme euh, comme comme comme la France ñoom dañuy tàmbali suba weer bu ñu tuddee mois sans tabac alors mois bi mën nga ko tuddee mois comme weer wala mois man sans tabac donc c'est des combats yoo xamante ni yu noble la dëkk yu bëri commencé ko en tout cas merci pour pour ce combat coordonnateur programme national de lutte contre le tabac docteur Omar Ba je rappelle que loi bi actuellement dugg na et que di ngeen ak paquet yi nga xamante ni dañ koy changé euh, def ci ay photo yu raglu yoo xamante ni ça peut empêcher euh, nit yi nga xamante ni euh, ñoom ñoo koy jënd ñu gën a daw merci a ci waxtaan bi. merci merci merci. merci docteur. merci ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax. voilà. merci donc loolu mu ngi jëmoon ci wàllu droit ak loi bi nga xamante ni actuellement moom la ñu taxawal jëm ci xeexuk cigarette